chers internautes yu enquête 221 dal jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé ko réew mi quotidien mi del ci jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci askanu Sénégal gi yéenekaay bi ñu xam ne askanuk Sénégal di ñëpp jaaxle gi fexe nañu ba ceeb bi nga xam ne manqué woon na ñu importé ci lu tolloog 1 million de tonnes Mamour Cissé di xam ne ci biir yéenekaay bi ne il faut que ñu xamalaat Sénégalais yi naka la ñuy dundee ndax jamono ji ci crise mondiale la ñu nekk yéenekaay bi nag luñ ci mënti xew li jëra jàngalewaat dëgg moo di naka la ñuy fexe ba daal di atteindre suñu autosuffisance alimentaire Dakar bés bi la jour moom ubbi xët bu yaate coowal foncier yi nga xamante ne ni saa su nekk ñu nemmeeku ko ci Sénégal gii yéenekaay bi ne coowal suuf gi de boo demee ca mbaan mu nga fa ba léegi palmarin mu nga fa ba léegi ndenga waxi noppi fàndaay ba ngiic nguurug Sénégal gii di cëqat cëqatee suufuk askan bi yéenekaay bi ne ku wax lii wax lee ndax jamono ji ñuy wax wàllum suuf boobu fekk na président Macky Sall moom di waajal troisième mandat bi nga bu demee ba amee ay jafe-jafe ngir poser candidature am mu

ma la dafa war a génn wax publiquement ne bokkuma ci élection présidentielle yee ñu jëm la problème jéem a tàqalikook bi ne mbeddum Dakaaru yi benn ci baaxatul fi mu toll nii ndox maa ngi fees dell ci mbedd yi rawatina ci diwaanu Médina ak Sicap jamono ji ñuy wax ak yéen oto la dem oto la ñëw situation yu catastrophique la askanu Médina ak Sicap nekkee bu dee waa ONAS mi ñuy joxoñ baaraamu tuuma nag moom la gis moo di lu ñu mën ñoo ngi koy def ngir mën indi solution ci jafe-jafe yi yéenekaay bi dañu xamal ne en tout gi moom parti yi nga xamante ni pare nañu pour dem élection présidentielle te ay comité ci biir dëkk bi commencé njaayum carte yi te moom sax président Macky Sall li muy sàkku ci responsable yi moo di 1 million 500 mille cartes yu bees maanaam ay militants yoo xamante ni dañuy soog a adhéré wu ci APR yéenekaay bi naan tukkaa Macky Sall am na lu muy nas ndax jamono ngi structuré parti bi bëgg relancer waat activité yi ak njaayum carte yi Walf Quotidien ci jamono boobu moom président Ousmane Sonko tàmbali woon na nemmeeku tuuram waaye ay jafe-jafe la ko tàmbalee ndaxte dañ koy stoppé fële ci diwaanu Mbour yéenekaay bi ne leaderu mu xamal kaw suuf ku ma mën a teree activité Abdou Karim Fofana moom yàq lu mel ne xeme Ousmane Sonko te koy xamal ni maanaam daal Sonko moom fitna mooy tax muy dund bépp activité ak ay yëngu-yëngoom bu àndut fitna moom du ko neex Vox Populi ni ñi nekk ci neex-neex kay dëgg jamono ji moo di waa APR yi nga xamante ni ñoo ngi relancer seeni activité jëlekaay bi ne waxuma la njaayum carte yi nga xamante ni président Macky jox na leen ci défi ne li mu néew néew indi leen mu toll ak 1 yi nga xamante ci na lu ne moo di Ousmane Sonko ca diwaanu Joal lañ ko gazé ni amoon na ne moom Ousmane Sonko nag li mu ci wax lu leer la su la neexee ngeen kenn mënuma koo xañ ci société bi dinaa continuer def samay activité ba Macky Sall mi ci góobee rek ñu gar ko Sud Quotidien moom dellusiwaat ci association bu bees bi nga xam ne ci opposition bi taxawal nañ ko ngir mën dajale maire yi nekk ci opposition bi yéenekaay bi nag gannaaw association des maires du Sénégal léegi nag beneen association taxaw na boo xamante ni njiitu Pastef Ousmane Sonko la ñu jiital ca kanam donte moom Ousmane Sonko nag mu ngi calmer le tey xam ne suñu association bii nekkul dafa ñëw di diir mbagg beneen association waaye dañoo am droit taxawal suñu kuréel lii moo ko tax a jóg sosu amam dañu mettali mbir bu doy waar bu am ci biir PDS yéenekaay bi ñu xamal ne boo ak Karim nga xamante ni duñu jege sax Karim Wade yéenekaay bi dellusiwaat ci problème yi nga xamante ni Karim Wade amoon na ko ci élection locale yi ñu génn ne pourtant dafa waroon a ànd ak waa Yewwi bi waaye Sonko ci boppam moo doon déranger Karim bi ba tax na PDS mënta lënkoog Yewwi bi ci élection locale yi ñu génn ci législative nag dañoo wañ loxoom moom doomi Abdoulaye Wade bii di Karim ngir PDS mën a ak waa Yewwi bi ba mën a am résultat yi ñu am ci jamono boobu Abdoulaye Diouf Sarr

a nga xam te ni maa ngi bokk ci opposition bi du mooyu troisième mandat fi mu nii ne président Macky leen dong ko war moo di wax ca kaw ne moom bokkul ci élection présidentielle yee ñu jëm yéenekaay bi dañu nettali mbir bu doy waar bu am ci daanu Matam benn waay boo xamante ni daal moom ak soxnaam sëy nañ lu tolloog ñeent at mënuñoo am doom waa ab baykat la dafa mujjee mer ba futtu daal di fekk jabaram ja ci biir kër ga jël fetal dóor ko jaare ñàkk ba kanam <laughs> fii la bët yem nag ñu yendoog jàmm mbokk yi ba suba ak jàmm incha allah